ñëw ci ci ci morceau bi. Mhm. ça va péter bi loolu lañu ñu loolu la tuddoon bu njëkk. mais nga ñëw contextualiser waat ko léegi c'est quoi c'est quoi le lan moo la lan moo la poussé nga indiwaat ko lan nga sentir ba yaakaar ni morso bi foog nga waat ko pour xamal sénégalais yi que ni ah, si sama gis-gis que li fi nekkoon dafa mel ni moo jógu fi daal en quelque sorte. et je me souviens bi ñu demee Guinée. Mhm. c'est le fait le plus marquant sax de su sunu carrière yëpp quoi en tant que pivoise même personnellement. Euh, dañ dem Guinée joué ji morceau bi moment boobu na Conté moo doon président. donc bi ñu mhm. defee morceau bi on l'a joué dans un si benn festival stade bi y avait près de trente mille personnes à quarante mille personnes. Mhm. mu joué morceau bi fekk moment boobu dëkk bi kenn sañul wax. maay fàttaliku bi ñu demee ci seen rajo. y la radio RTG la radio guinéenne télévision guinéenne bi ñu dem di ji di di dem di def émission dañoo fekk ci buntu kii bi ñu def benn note de service quoi buntu studio bi mais on n'a pas le droit de jouer de la musique étrangère mais ñu comme on était là-bas c'était une exception mm-hmm. ñu ñëw di jouer waa ji lañu quel titre lañu ñu war a jouer ñu jox ko ay titre mais ci titres yi si boppam da doon tànn ne ne bu mm-hmm. leen jouer ay titres yu wax ci politique bu leen fi wax ay waxu euh, révolution et cetera et cetera donc bi ñu joué morceau bi si si si festival bi ça a eu un énorme succès ñun sax on était surpris parce que bi ñuy joué son bi stade bi tout le était sa affaire bu doy waar mosuñu woon gis loolu bu ñu wàccee policiers yi gaa yi doon garde foofu nañu yéen am ngeen chance quoi le fait que ngeen nekk ay sénégalais moo tax mm. soo leen doon ay guinéens si kaso bi ngeen nekk morceau bi depuis bi ñu ko génnee dans les années 2000 chaque fois dëkk yu ñu ci dem day marqué parce que la plupart malheureusement de sunu yenn dëkk yi nekk Afrique de l'Ouest en tout cas des pays yu bëri yoo xamante ne c'est des régimes militaires qui étaient là-bas wala c'est des régimes semi-dictatoriaux yoo xamante ne liberté d'expression amu ko mais morceau bi moment bi muy génn ça ne directement le Sénégal ay artu la mm-hmm. que si morceau original bi premier euh, couplet bi dama naan j'avais dix ans je les entends encore jurant dix ans que dans dix ans on vivrait mieux que nos parents Cela fait, fait plus de dix ans. Ils disent encore dans dix ans. J'ai plus de vingt-six ans, mon avenir c'est maintenant, pas dans dix ans. Donc c'était une manière de dire que xale boo xamante ne dafa nekk xale nga dig ko di ko dig di ko dig di ko dig day mel ne finalement même personne yi fi toog di digaate ñoom ñoo fi nekk mhm. même personne yi ñuy dig ñoom ñoo fi nekkaat donc amul dañ lu changé te loolu bi ma lay bi ñuy bind morceau bi c'était une manière de dire que peuple boo ko oppressé lu yàgg boo ko tëncee lu yàgg c'est comme rek bis boo ko bàyyi day exploser day pété day tëb donc c'était une manière de dire aussi nañu moytu li ñuy wax yeneen dëkk yi nekk suñu si sous région bi nañu moytu lu mel noonu dal ñu donc 2023 2021 d'abord mu am ay événements mais avant 2021 am na lu bëri lu nit ñi di fàtte mm. en janvier 2011 2012 amoon na tamit ay événements yu amoon jamonoy Wade amoon na ay événement yu doy waar yu fi mosoon am n'est-ce pas mooy période u euh, M23 mhm. n'est-ce pas période boobu amoon na tamit le décès de de policier Mamadou Diop déjà mais policier tamit euh, fële mhm. euh, manifestation yu amoon place place de place de de l'obélisque mhm. donc violence bi commencé woon na fi ñëw par nànk-nànk donc violence bi li si gën a bëri yu indi ay mort si politique bi lay jógee Mhm. donc ñu avancé ba deux mille vingt et mille vingt et li xew Macky Sall le président Macky Sall dafa génn si télé bi ne lii du fi amaat après ne non je vous ai compris donc pour ñun je vous ai compris bi ce n'est pas di indiwaat ay policiers pour ñu indi répression je vous ai compris c'est de créer un moment de dialogue pour te pour dire lii la lan ak lan moo indi coow li mhm. ñu baña fexe ñu fexe ba loolu bañ fi amaat n'est-ce pas mhm. parce dañu gis ne les moment boobu lan moo doon coow li vous rappelez aussi que si période du corona bi lañ nekkoon si période du couvre-feu lañ nekkoon. donc am na benn genre frustration am na lu bëri loo xamante ne moom moo mënoon a expliquer. Mhm. li loon par exemple événement yi am. Mhm. ok mais yàlla dafa def ñu jógee foofu mu ne en 2023 corona amatul couvre-feu amatul mais événement yi xew c'est beaucoup plus. grave et c'est beaucoup plus sanglant mm. que li fi jotoon xew en 2021 mmh. donc tout cela c'est pour vous dire aussi que suñuy artu peut-être que ni on n'est pas des du ñu ay savants du ñu ay devins mm. mais dañuy am peut benn vision bu ñu am ci dëkk bi ni muy doxee mm-hmm. donc yenn yu bëri suñ koy wax c'est dañuy basé wu ci suñu gis-gis ci suñu expérience adduna ci suñu expérience wu pas psychologue sax mais li ñuy gis ne moom la foofu la dëkk bi jëm mm-hmm. su fekkente ne on ne fait rien su fekkente ne on ne dit rien c'est comme si on était des complices donc je pense que loolu tamit c'est quelque chose de très important à dire mm-hmm. donc bi ñuy def morceau bi ça va la première version ça ne concernait pas forcément le Sénégal bu ñu demee ba 2023 ñu gis ne symptômes yi ñu doon wax ci ça va péter njëkk bi symptômes yooyu moom mooy commencer di feeñaat mm-hmm. ci sunu génération bi il est important que ñu réactualiser ko il est important tamit ñu am lu ñu fàttali fàttali lu ndaw gis nga si tu écoutes le morceau ba ci fin bi am na fu ma naan euh, fake news yi ak désinformation bi ci net bi kon balaa ngaa partager xoolaatal bu baax. Mm-hmm. mooy bu version bu mujj bi ah. bu mujj bi mujj mm-hmm. parce que est arrivé dans une époque boo xamante ne manipulation bi si ñaari côté yëpp la. Mm-hmm. et les gens ils jouent sur l'émotion émotion dafa doy waar da ngay nekk sa kër di seetaan télé di seetaan YouTube si sa téléphone mu am benn journaliste wala benn reporter bu nekk sur le terrain ki ne pas expérimenté mhm. parce que je pense que terrain ngay jàng nga toog sa studio di animer ak nga nekk si terrain bi di reporter bokkul il faut nga am sang-froid ak recul pour mun a commenter actualité bi. Mm. pour mun di commenter événement yi. Mm. pour que ki lay déglu nga mun koo wax li li li am parce que soo amulee recul problème bi ngay am mooy tu vas méjuger la situation mun nga wax lenn loo xamante ne ci saa si la preuve chaque fois ne nañu bu amee ay événement ki si njëkk loru moom mooy dëgg chaque fois bu amee ay événement yu mel noonu les gens sont derrière le scoop. pas derrière la vérité. scoop mm. d'abord mooy li ñu gis. Mm-hmm. taal nañ fi benn oto gars yi ni gis ngeen taal nañ oto bi kërëb kërëb kan moo taal oto bi nan lañ ko taalee et cetera loolu ça vient après. Mm-hmm. mais li nga xamante ne moom mooy sensationnel bi moom lañ ñëpp di gis moom mooy loolu. Mm-hmm. donc morceau bi je l'ai fait comme j'ai un benn benn kii bu bees euh, euh, projet bu bees benn concept bu bees bu ma lancé bu tudd live bu gàtt. chaque semaine damay jéem def benn sujet buy wax ci actualité journal râpé quoi exact <laughs> journal râpé en version plus on va dire actuelle version bu gën a ànd ak euh, version court yi nekk ci réseaux hmm. sociaux yi comme ay TikTok comme ay Snapchat comme les les les les euh, comme ci short yi nekk YouTube et cetera donc l'idée c'était de continuer à donner des informations sur l'actualité bi ma defee morceau bi mënu ma ko woon ci saa si à cause justement des restrictions de internet donc moment bi morceau bi pare jour boobu mënu ma ko woon génne donc j'en ai profité ma ne xaar ñu def vidéo bi on va essayer de peaufiner defaale la traduction wolof defaale traduction def sous-titrage wolof et def traduction bi en français mm-hmm. pour que aussi le message puisse être euh, entendu par beaucoup de personnes okay, mais ça. à la base c'était pour moi c'était c'est un morceau qui va c'est un morceau bu dul dee parce que chaque fois qu'il y aura des événements de, comme de ça ces événements. absolument et...